xikma yi ñu tàmbali woon fan yi te doon ci wax ci aaya jooji suñu borom tabaraka wa taala wax ci suratul xijri ne eh, lépp lu baax lu ngeen di yittewoo àdduna ak àllaaxira suñ borom ay magasin la ci am te doyoo ko dara yéen a ko tax a jóg ah, ñu andi ci tey nag xikma boo xam ne moom lañ koy mottalee waaye nag xikma bi lépp mbég lay doon sunu digganteeg sunu yaakaar Cheikhul Xadim tem doon te mi doon lu wér ca ngit niñ ko baaxoo defee ci xikma yépp Eh, ñoo ngi ñaan ko ci jot ku nekk nañ ko ñaanee woon ci bu njëkk ba nga tasaare ko jot jotale ko su mbokkum jullit jotale ko su mbokkum taalibe ku ko def ku nekk yàlla na nga dugg ci mayi Serigne Touba yi ci ne eh, jëlee naa ci Serigne Bassirou Bousso man Salihu si jëlee naa ci Serigne Bassirou Bousso moom sëriñ Mbacké Kanni Bousso moom Serigne Bousso be mu jëlee ci baayam bu ndaw Serigne Omar Bousso caatum Serigne Bousso be sëriñ Omar jëlee ci Cheikhul Xadim Xadimu Rasul sëriñ Basiir Bousso dafa wax ne bis dafay dem di daf dafa dem di siyaare ji sëriñ Omar bu so baayam baayam bu ndaw la mooy caatam sëñ Bousso bi sëriñ Omar ne ko man de bis dama siyaare ji woon ku tedd gi ànd ak lenn ci ay bokkam siyaare ji sëriñ Tuubaa nee na bañ demee sëriñ bi di waxtaan ak ñoom ba mu yàgg mun a leen. xam ngeen xayroo nee na sëriñ bi nag ku masaana laaj ci mag ñi ndax xam nga nàngam doo ko ñemee xam nee na sëriñ Mbàkke Buso sax bu ko sëriñ bi ne woon xam nga xaalaa du ko ñema ne xaala kay mooy wax na sëriñ Omar nee na ñu ne ko ñun de xayru xamuñu ko sëriñ bi ne tekk ba mu yàgg mënul leen xayru mooy lu baax lépp lu baax rek àdduna ak àllaaxira mooy xayru daal ne ba ko suñ borom bindee nag moom xayru da koo tëj ci ay magasinam daal di wax ne ku dox ba agsi fi lum laaj nangeen ko ko jox nee na daal di joxoñ sëñ Omar ne ko yoon wi sori na de te ponk la nga fi boof booleeg bànneex ak saytaane ak bakkan te ku ci laal dara ci yooyu doo àgg ne leen waaye man de àgg naa ba ma àggee fekk ñu bind ca bunt ba ku fexe ba agsi fii lum laaj na ngeen ko ko jox nee na ma laaj ñu ne ma diw ak diw de agsi nañ fi dal tudd ñaar ci nit yàlla yi malaaka yi ñoo koy nettali ne ko waaye ñoom di bañ agsee ku ci ne dafa jël lam soxla moo ko njabootam lu ko doy sëkk dal di génn dem sëriñ bi na waaye ma ne leen man nag caabi yi laa soxla caabi yi caabi yi maa si nii nee na malaaka yi ne ma ah loolu de kenn mësinu koo laaj xanaa ñu laaj ko suñ borom sëriñ bi ne leen bii bindu ñu defee ne fii ku fi ñëw lu mu laaj na ngeen ko ko jox ñu ne ko waaw waaye nañ ko laaj suñu borom mu ne leen dem leen xam naa lam leen di tontu nee na bañ àggee daal ne suñu borom ñun de dafa am ku fa ñëw ñu jaaxal ndax moom de caabi la soxla nee na nee na suñu borom ne leen kooku de moom a gën a xam ci ña fa jaaroon ñëpp ndax buñ ko buñ defoon ni moom kon bu ñëwee ca ñoom rek lay mën a jaari waaye nag jox leen ko ko ku soxlaati lu baax te mooy xayru jaari ca moom te loolu sëriñ bi moo ko bindal boppam ci muqaddamatul am daa wax ne màngasinu suñ borom yooyee muy wax nga xam ne ci la tëj mboolem lu baax àdduna ak àllaaxira jox na ma caabiya lool moo ko bindal boppam ci muqaddamatul am daa xazainu rabbi futtixat lii wa sax-saxat li xayril aza dunya wa uxra wa barzaq sëriñ bi itam waxin wi wax na ko lu ay yoon yoo xam daf ciy leeral moom kim doon ngir bañ a nëbbutu bindeef yi ci ndigalu suñu borom tabaaraka wa taala ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa defee am na fu mu wax ne suñu borom moo ma digal ma leeral ne man kat ab làqukaay la ab wéerukaay la ab muccukaay laa te képp ku bëgg xayru àdduna ak àllaaxira na wéeru fi man amarani rabbi bi an usarriha bi annani malazun wa himan wa mabsa wa man araada al xayra fii kiltayit daarayni falyelus bii am na fu mu waxee ne bu nit ñi xamoon li ne fi man danañ daw ñoom ñëpp sàkku si ko waaye réere giñ ko réere nag tax na ñuy sàkku leneen lu leen amuloon njëriñ law alima annaasu maaxu naa la baadaru ila talabi walakin lamma jahiluhu talabu xayru am na fu waxaat na sun borom jariñ na ma ba mbindeef yi ci man lañuy ñuy jariñoo ni wa biye yen faxul wara am fu waxaat ne ba may liggéeyal sun borom de ca liggéey ba deeyaale na maag moom ba mujj ma doon fa koo xam ne ne maay mbégteem santkat yépp naajaani yal waaxidu xindal jaahidin bi am na ni surtout surural amidin kon ñun nañ sant bu baax ba nu suñ borom dimbalee ba ñu teelee ñëw ci moom mbokk fa mu ndax Cheikh Abdoulaat kat noonu na Sëriñ Tuubaa ku fi sam xel andiwul xel dana la kon nag ñun nañ sant ba ñu fi suñ borom teelee indi ñu fi négee rek ndax Sëriñ Tuubaa mooy xayru te xayru kenn mënu koo ñàkk te ku ko bëgg am faaw it nga jaar fi moom te moo ko bind nettali bi itam ma jële ci sëriñ Basiiru Buso mu jële ko ci sëriñ omor Buso sëriñ Omar Buso moo ko jëlee ci ku tedd gi te baat yi nam ko waxee itam noonee laa ko waxee yàlla na nu suñu borom dollee dimbale te dollee dimbale jullit ñëpp mbirum sëñ Tuubaa nag ëpp na ay ëpp na ay xeet ak askan la sëriñ Tuubaa di jariñ wallahu yansuru nii wal xalqu tatbaxu nii fil barri wal baxri daa nafin bi laa darar yàlla moo ma dimbale ba bindeef yi topp ma ci géej gi ak ci jéere ji ma leen di jariñ te duma leen lor loolu sëriñ Tuubaa moo ko bind kon nag ñoo ngi sant bu baax sant mbokki jullit ak mbokki taalibe yi di ñaan ku jot ci xikma bi nga tasaare ko ku ko def ku nekk yàlla nañ dugg ci